ci biir jumaa yi Sëñ ji nga xamante ne radiyallahu anhu moom lañ nekk ci bisum muy bisub fukki fan ak juróom-ñett waxoon ni saa bu excité na ngeen ma ci sant yàlla ñuy ñaan cant gi ñu nekkee ci bisub tey bi yëpp yàlla nañ ci làq ngërëmal yàlla làq ci ngërëmal Cheikhul Khadim ginnaaw loolu nag ni ngeen ko gisee diirub biñ ñee la 15 safar ba tey ba ubbi woon maarat bi nga xamante ni moom la ñetti mbooloo yi séq mooy diggante daairatu muqaddamatul xidma ak diggante ay yem muy association des écrivains mourides ak daairatu rawdu rayaxiin ñu ubbi woon liggéey bi ci jataay boo am am solo boo boobaak léegi nag ñu amaloon ay jataay waxtaan ak exposé ay livres yoo xamante ni yuñ bind ci murid gi ak yuñ bind ci cheikhul xadim waaye ñu gunge woon ko ay jataay jataay yooyu nag jataay bii ñu def ci la bokk tey jii nag ñu dalal koo xamante ni ku dëkk bi xam la waaye ku senegal gi yépp xam rawatina yoonu murit ndax ku ko gis kenn dootu ko laajte muy docteur Moustapha Kay bokk ci membre Rawdu Rayahin waaye bokk ci commission culturelle bi muy àllañ na athaqafiya di ci càmbar lool bañ ko xamee ba tey mu nekk ci liggéey cheikhul xadim bi di tasaare diine di tasaare njàngaleem cheikhul xadim kon ñu jox ko mu nuyoo su ko defee ñu door a dugg ci waxtaan wi kon docteur Moustapha bismillah bismillahi alhamdulilahi wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sëriñ ngi jaar ci yow di nuyu waa bu am solo bi nu muqaddamatul xidma su barab bu am solo bi ñu nekk muy yi Tuuba ñun ñëpp koo xam ne yaa ngi dégg sun kàddu rek sun kaddu ban fa yegg ñu ngi naan la asalaamaaleykum wa rahmatullah di ndokkeel tey jullit yëpp rek ci bis bu am solo bi bis bu màgg bi di ñaan yàlla li ci boroom diggee woon ci ay xéwal yàlla buñ ci dara ump ñaan yàlla tamit bis bi bàyyi ñu ci jàmm te fekkaat ñu fi ay yooni yooni yoon ànd ak tal ak wér alhamdulilah Serigne Moustapha yàlla na sama borom nangu ñaan yëpp. ginnaaw loolu nag tey jii ku ne xam na ni exposition bi dafa amoon thème central boo xamante ni ñun ñëpp ci lañ doon waxtaan. Hmm. muy leetar bi nga xamante ni Cheikhul Khadim bindoon na ko Samba Lawbe. Hmm. muy leetar boo am solo. Hmm. muy leetar boo xamante ni dana baax saa su nekk. ñu di ko jàngat. ci diggante euh, rawatina ki nga xamante ni képp ku yor ndombal tànk. Mhm. ñu bëggoon a xam rek Serigne Moustapha ci lu gàtt. Mhm. comme loolu moo nekkoon te mu central bi. Mhm. nga joxe sa xalaat ak li nga xamante ni moom nga ñu mën a résumer ci lu gàtt. lan moo nekk ci biir lettre boobu. Ah, alhamdulilah euh, lettre bi nga xamee ni wala ndinkaane bi nga xamante ni. Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu moo ko bindoon Sàmba Lawbe xam ne moom Sàmba Lawbe jamono jooju mën na ni tey euh, kilifa la woon ñi di ñuy tuddee kilifa ak caada xam naa pour mën koo xaajale pour mu gën a leer donte xam naa man damaa jàpp tax lépp moom mbiri àllaaxira la ndax dara lu tàmbalee fii ak yem fii waaye Sàmba Sàmba Lawbe moom kilifa la woon ci wet mm-hmm. sëriñ bi doon kim doon Sàmba Lawbe xam ni kii mën na koo jëriñ moom tam macha allah mu am fullay dem sàkku ji njëriñ jooju ndax euh, ndénkaane bi sàmbalaw bi moo ko sàkku ci sëriñ bi moo sàkku ci moom na ko dénk sëriñ bi taxawee taxawaay bu am am solo taxawaay yém nga xam ne yàgg na taxawee nu ni mel dénk ko te yàlla tax lam ko dénk nag buñ ko doon tënk rek ci gën a am solo mooy yow dafa am foone ne yow sàmbalaw bi dafa am loo jiite la jiite dafa ànd luñ mën a wax doole am na ca tey boo bëggee def da ngay def boo bëggee dindi da ngay dindi doole jooju nag moo koy bàyyiloo xel ne ko bu mu la taxa doole jooju na ko bàyyi xel ba bu mu la taxa tey bew bu mu la taxa bew bu la taxa def dara ngir sa bànneexu bakkan bu la taxa tamit bàyyi dara ngir sa bànneexu bakkan ndax doole ji nga am xamal ni addunaa la ko jox rek te adduna moom dara am saxut adduna warkat bu mag a mag la ni ko suñ Musaa Ka waxee woon warkat bu mag la ci kaw war googu muy war nag nanga xam ni eh, li ci gën a leer mu xam da nga ciy teg sa bët mooy li judduwaale woo ko léegi bis da euh, ñeneen ñoo ko doonoon avant yow ñooñu yàlla daf koo dindi seeni loxo moo xam dañoo faatu bàyyi ko fi moo xam yàlla foqarte ko seen loxo ci beneen anam ci ni ñuy folleeg wala ñu mel noonu wala ñu ëpp ko doole nangu ko ci moom lépp àddunaa def loolu daat koy ñëw jox la ko yow tam bis da bis dana ñëwit ah nan ñun ni ko ni mu jógee ci kooku ñëw ci yow noonu lay jógee ci yow rek dem ci keneen maanaam dara saxu fi adduna tey ni muy tey lay ànd ak yow jàppale la faral la nga dal ci kaw keneen kooko tey daal di am euh, gàcca yow nga am ndam beneen yoon it keneen lay àndal tamit dal sa ko adduna noonu lay doxe te loolu moom du dañ kon nag ab ab koo xam dafa jiite am doole ji am mën a def mën a dindi moo xam yaatu moo xam xat na nga wax ko lii ko fekkee tey am na dara ci tawféexu sunu borom rek dana bàyyi xel lii bu baax a baax te daa mel ni euh, sàmbaloo bi moom bàyyi woon na ci xel dara ndax wax dëgg yàlla daa mel ni yàlla mayoon na ko tamit mujj gu rafet ci tënk daal xam naa loolu mooy ci ci ci gën a message bi ci euh, gën a am solo la message phare bi daal lubbul mawdu ci ci euh, ndinkaane boobu daanaka moo doon loolu rek ci jàngat bu am solo boobu ak ni ngeenu ko tënkalee muy li ci ëpp solo wax nga nu ko mm-hmm. kon liñ ci gën a mën a jàppe ci képp koo xamante nii kilifa nga rawatina ngi jiite dara kon mm-hmm. foofu liñ fa mën a jàngate mm-hmm. mooy mel na ni sëriñ bi moom yàlla dogaloon na donte sàmba moom moo sàkku ci woon moom mu dénk ko sëriñ bi daal di koy dénk waaye yàlla dogal na nag mel na ni amoon nañ ak jaxasoo léegi nag kon ci foofu la ñuy ñëwee ginnaaw bi ñu jàngatee lettre bi ba noppi. ndax ci biir lettre bi bokk na ci li ciy feeñ. mooy diggante ñaari kilifa yu doon jokkoo. mooy jokkoo gi mooy Samba Law bi mi nga xamante ni moom moo nekkoon Amiru Jolof. sàkku ci sëriñ bi mu dénk ko. sëriñ bi moom tamit daal di koy dénk. ndénkaan loolu nag ku ne mën na koo jëriñoo rawatina ku dib kilifa jiite ah. ndombal tànk. Ah. kon ñoom ñaar yàlla dogoon na amoon nañ di amoon nañu ab relation kon loolu ñun ci la ñuy ñëwee xamante ni moom mooy nekk suñu temu li ñu nar a waxtaane mooy relation bi nga xamante ni kilifa diine war na koo am kilifa ñu mën ko ni nga ko waxee kilifa caada mm-hmm. mooy koo xamante ni ku jor benn post de responsabilité mm-hmm. kon léegi nag loolu mooy li nga xamante ni moom lañu ñu war waxtaane te ñu jële ko ci biir leetar bi mm-hmm. kon sëriñ Moustapha laaj bi ñu njëkk a rek mooy kan mooy kilifa diine ndax gis nañ ci biir leetar bi bokk na ci li nga ñu wax mooy kilifa diine gu doon dénk kilifa ak aada dana baax ñu xam kan mooy kilifa diine waaw kilifa diine buñ ne diine ñun rek lislaam lañ si jublu mooy koo xam ni maanaam am na fu mu yegg ci xam-xam xam-xam mooy ci slaale lépp li nga xam ne loolu dafa feeñ bu baax a baax ci doxinu sëñ bi feeñ dundam feeñ ci feeñ ci bindam xam-xam la doon jiital ci lépp daan fonk waa xam-xam daan leen jiital ci lu bëree bëri xam-xam moo ci jiitu waaye xam-xam boobu tamit mu jëfe ko xam-xam ndax xam lu ma bari bari ak leer waaye lu mu bari bari bu nit ki jëfewul tamit du ko amal njëriñ mooy xam may moo xam boo xam ne dañ koy jëfe boo ko defee nag nga doon kilifa ku am xam-xam te jëfe ko rek yeyoo nga ñu topp la yeyoo nga ñu roy la topp li muy ju mooy ñu roy la ñu déglu la nga gindi keneen lu mu gàtt-gàtt mën nga di nga war a mën li naan hidayatu irshad mooy nga wan nit ki ni fii nga teg sa tànk du foofu waaye fee nga ko war a teg ku xam rek te jëfe rek mën nga lool te lii gën a dëggal loolu mooy sëriñ bi boroom xam-xam bi ñu doon waxtaan ci baatu tasawuf gi fii la jóge fee la jóge ñuy waxtaan ci baat bi ci euh, ci son ci origine euh, origine baat bi fan la jóge moom bu ñëwee bi mu ñëwee wax yooyu yëpp daf koo tënk tënk goo xam ne gu am am solo la mu ne lu mën a xew daal bu ma la ko doon tënkal tënk bi daal daal mooy kooku ñuy wax as suufi boroom xam-xam lay doon boroom xam-xam bu jëfee xam-xamam lay doon jëfe ko dëgg dëgg jëfe nekk te am ceeg constance ànd ceeg sax ci tey du ko def nii suba mu wàcc da ci daal di sax rek mu doon dundam kon nga xam ni jëf san xam-xam mënulaa def kilifa ndax da juum xam-xam sans jëfit mënulaa def kilifa ndax tamit li nga xam jëmmaloo ko kon ñaar yooyu ku ko def rek yooyoo nga ñu lay bàyyi xel yooyoo nga ki nga xam ne yëggul fi nga yëgg mu topp la maanaam mu roy la waaw leen wax taqalit yooyu ki nga xam ne yëggul mu mën na la mën na la roy ci say jëf mën na boo xamul tamit mën na ñëw laaj la léegi nag la plupart ku mel noonu tamit da nga gis dana am ñoo xam tamit dana bootu ci ginnaawam ndax ñi ñëpp ñëpp yegguñu foofu ñëpp amuñu tawfiixu yeggu foofu te booy xam di jëf rek nekk di jëf di jëf jëf rek wattaqullaha wa yuallimukumullah day ñëw ndax jëf googu rek euh, la borom xam xam waxoon bi muy chartal juróom-ñaari charte yi nga xam ne kuy saako xam da nga ciy tënku mm-hmm. bi mu naan lahu tagarrab wa tawaada wa taria wa juuhun tabia watte bi jooju charte bu njëkk bu mujj boobu mooy li nga xam dee ko jëfee ndax boo koy jëfee rek xam-xam bi day yokk leer gi day yokk leer gi nu muy nu muy yokkee rek yàlla lay samp nga bokk ci lampam yi koy niital jaam yi won jaamee fu ñuy jaar mhm. kon damaa bëgg wax ne foog mhm. tey am ñu la guy si foog tey am ñu wékk seen i mbir tey ci yow pour nga leen di gindi pour buñ soxlaa laaj la buñ jaaxlee ñëw ci yow nga naan leen nii la nga naan leen kooku nag moom mooy kilifa diine boo ko defee nag mu tënku nag rek doxinoom boobu gindi ñoo ñi nga xam ñoom ñoo ko topp ci ci fi nga xam ne fa la jëm. waa léegi Serigne Moustapha ginnaaw bu ñu déggee li wax mooy kon kilifa ak diine gi faaw mu taqoo ñaari jikko yi. waaw mënut a na mooy xam ak jëfe ndax loolu sax bokk na ci li Mawlana Cheikhul Khadim doon wax ni tax ñuy sàkku xam-xam mooy. Hmm. al amalu bil maalum. mooy li ñu jàng boo liggéey ñu mën koo jëfee. Hmm. jëfe xam-xam bi. Hmm. waaye léegi nag su fekkee man naa ko jël sama bopp man ma am sama kilifa kilifa gi. moom amul xam-xam. est-ce que ñu topp ko. déedéet ko xamul kenn kenn kenn kenn waru koo topp kenn waru koo laaj sëñ Moussa Ka ne woon man ko xamul laajul ku xam xaw ma layam ko xamul laajul ku xam wéeruwul ci koo xam dafa xam. Mhm. koo xaw ma layam te loolu tamit kenn xamul layam. Mhm. kon da dagay da ngay maanaam da ngay xam xam gi moom mënta ñàkk mooy charte bu njëkk bi. xam nga ñun yàlla daf ñoo def ne dama leen a wàcc kaw suuf ngeen doon samay kuutaay. ngeen représenté am ngeen doon sama xalifa mm-hmm. bi muy wàcce ci kaw suuf mu ne ñu dama wàcc naa leen kaw suuf te xamu leen dara wallahu axrajakum min butuni ummahatikum laa taalamuna shay'an xamu leen dara waaye nag bàyyiwu leen noonu mm-hmm. da leen utal ay jumtukaay mm-hmm. wa jaalakum samaa wala basaara wala afida yàlla da leen defal tey ay déggukaay jumtukaayu dégg jumtukaayu gis jumtukaayu xel miy jàpp ak di tànn boo ko defee nag defal na jumtukaay yoo xam ne war naa tax tey ngeen teg seen tànk fu mu ko bëggee bu njëkk mooy ngeen xam. kon mel na ni. xam moom mooy ñàkk moom. mooy li mënta ñàkk ci kilifa. bu ma ñëwee ba tey ngir gën a mën a tasaat waxtaanu ngir ñi topp ci MKTV ak ñiy suivre télé bi yëpp. Mm-hmm. man a gën a xam man koo jariñoo ginnaaw bu ma amee kilifa gu xam. Mm-hmm. léegi kilifa gi moom lim xam du ko jëfee. Mm-hmm. ba pare ay nit topp ci ginnaawam. loolu tamit jàpp naa ni beneen problématique la. <laughs> boobu day day même même réponse lay doon rek ci bële ah. ndax ñaari charte bu njëkk bi da ngaa benn bi benn bi nga rocc benn même que réponse bi lay doon xam nga bi mhm. daanaka tontu woon na question bu ni mel mhm. dañu woon man talabal wusula lil jalil fal yactasim bi sunnati rasul mhm. bi an yulaadima mutian laa yamiil mutian waaw ku bëgg a dem ci ku bëgg a ci borom bi bëgg am ngërëmu borom bi na nga jaar ci sunna na nga ci ngoy bu dëgër noo koy defee mu da ngay taqoog koo xam ne moom sunna soos moom daf koy pratiquer daf koy mhm. jëfe daf koy mhm. jëmmal waaw fii zahirin wa baatin ani sabil yoon yu jëmee yëbb nit ñi ci yàlla moom mhm. du ci jëm du ci jëm du ci du ko bàyyi mukk loolu mooy la ma waxoon ne fal xaasulu suufi aalimun amil bi almi xaqiqatan wala mais mooy loolu moom dëgg daf cee nekk dëgg-dëgg ànd ci constance doo kon loo xam ne tey mu jëf lii bu gisee tey lu ko fàbbi mbaay moom toujours na nga ko fekke noonu ko bàyyee boo ñëwaatee tamit noonu ko koy noonu ko koy fekk. nga xamante ni kilifa ak diine gi ngay topp. Hmm. moom du tey day am na mu mel. bu hmm. nekkee ci kanamu nit ñi. Hmm. mel nii. wala bu benn événement amee mu am na mu mel. su ca jógee pare na ca. moom day xam nga kiy jëfe te borom te yàlla tax moom moom gisul nit ñi sax. moo tax ma yeggale mu ne yaquuduhu bil ilmi wal ibaada daf koy wommat jëme ko ci boroom bi ci xam. ak jëfe li mu xam mooy abaada. xamante ni ki lay topp xam jëfe li mu xam. da topp ci. Hmm? xam da wóor la ni kilifa gii ngay topp. Hmm? maanaam xam na te li mu xam mi ngi koy jëfee. xam nga kilifa pour li koy pour mu gën a mën a yar ñi muy yar. Hmm. li leen di sant da leen koy dàq. bu leen di sóob ci xiif day fekk mu gën leen a ñime xiif. comme comme comme misaalum sëriñ bi rek bu leen di sóob tey ci nelaw yu néew day fekk tey tey boo naan xale yi sa ndongo yi dem leen tëddi ñu ngi la fekk yow nga ñu nga bàyyi nga toog nekk ci dara di nga xëy na di nga dem dallu ba jugaar ba toogaat foofu ñoom tey ñu door a jóg ñu xam ne dañuy gëm sax ni moom de fi ñu ko fekkoon loolu da leen di gën a yokk passif mm-hmm. waaye fekkee boo leen di sant mm-hmm. dara day fekk yow nga dàq leen ko nga jiitu leen nga jiitu leen ci kon nag mm. loolu fekkee defoo ko mm-hmm. day contradictoire te day naqaree euh, dégg nga ni ma del def lii di ma soññ dama ñu soññ en tant sama kilifa te ma gis ne yow doo ko sax def jërëjëf Serigne Moustapha loolu du day du mën a dem mel na ni kon léegi xam nañ kan mooy kilifa diine mm-hmm. ginnaaw bi nga ñu joxee ay ay ay ay bind yu am solo ci kan mooy kilifa ak kon kilifa ak diine gi buñ ci demee jàpp <coughs> bis dañuy xam ne mooy kilifa goo xamante nii maanaam day boole ñaari xam ak jëfe saa boo ko gisee mu xamul jëfewul xam-xamam moom kooku kenn waru koo topp baneen bi ci topp ci liñ koy topp mooy ci li nga xamante ni mooy lu baax koy kenn du ko topp ci loo xamante ni lu baaxul la kon jërëjëf euh, Serigne Moustapha kon dañuy daal di sóobu ci ñaari tomb bi ndax fu ñu waxee kilifa diine nag dana baax ñu xam kilifa ak aada hmm. ndax ñoom ñaar bokkuñu. léegi nag kan mooy kilifa ak aada. waaw xam nga li tax ñuy waxtaane loolu sax. Mhm. sëñ may mooy euh, ku nekk ak sa contexte. Mhm. ak sa jamono. lii bu doon jamono yonent bi sallallahu alayhi jàpp naan duñu waxtaane lii. ndax kilifa ak diine ga moo doon. kilifa ak li ñu naan kilifa ak aada tey. Mhm. mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba ci ginnaawam xulafaa am yooyu tamit noonu la doon doxe euh, kilifa ak ci suñ jamono yi tey kon. mooy koo xam te dañ koo fal ci suñ xob yi ñuy fale nga xamante ni mën nañu wax ni mooy koo xamante ni da ngaa jiite am réew wala da ngaa jiite ab waaw moom mooy da koo dañ koo fal mhm. maa ngi ñëw ci suñ xob yi ñuy fale mhm. wala loola tey ñun nome ko ko mhm. kañu fal dañ koo fal indirectement maanaam dañ koo fal moom mu nome keneen kon daa mel ni ñun ñu fal nan ko nekko ko léegi nag mën nga loo def ànd nañ ci suñu tur nga ko defee moom kum nomee dafa mel ni ñun tam kooku ñun ñoo ko fal indirectement Euh, beneen bi mooy wala loolu bareetut sax ngir koo xam ne day dem foq ci loola comme temps maa ngi gën a wax nag te waxuma ko détail léegi waaye temps buure sax laa ci gën a wax bu mu ci mën a doon kooku daal jiite na mbooloo ma ci seen wàll goo xam ni lijjantiwul seen diine seen diine ne mbooloo mi tamit réew mi mu jiite wala gox bi mu commune bi mu jiite wala euh, quartier bi mu jiite ñooñu bàyyiwuñ ko xel seen wàllu diine kon tey li ñu koy bàyyee xel mooy seen mbiru àdduna yi lu jagal réew meeg yu mel noonu kook fi mu toll nga xam ne moom tam dana xam ne sax bàyyiwuñ ko xel ci wàllu diine moom daanaka du la plupart du dugg sax ci mbiri diine waaw moom ñëpp ñoo cay yem kooku la ñuy wax ñun ci ñun kilifa aada te nag du du mën a ñàkk parce que lépp lu ñuy xëy di ci gont daanaka lépp rek mën naa ni lu baree bare dafa aju tey ci doxalinam moom moo tax ñu naan boom comme su la mel ni sunu constitution bi dañ naan njiital réew mi ci boppam moom mooy définir tey politique réew mi ci wàllu yëpp mhm. ban système éducatif la ñuy jëm nan la ñuy jàngee ci école ba mhm. nan la ñuy suñ commerce tey nu muy doxee nangam nan la suñ njaay ak jënd mi nan lay doxee dëkkuwaay bi nan lay doxee lépp moom moo koy tàll daal di nii laa bëgg ñu doxee ko loolu tey kenn mënu cee mucc déedéet déedéet mhm. kon li nga leerale kilifak ak aada. Mhm. mooy koo xamante ni daal sunu doxalinu àdduna bi yëpp. Mhm. moom ci moom la ajo nga xamante ni lépp moom moo koy lijjanti. Mhm. moom lu jëm ci mbiri diine dafa mel ni moom yoonam du ci dugg. ah surtout bu dee sunu réew yi. surtout nag su dee sunu <laughs> réew yi nga xamante ni maanaam mel na ni sunu réew yi ak réew yu bare bare bari mel na ni kenn ku ci nekk dañoo séparer ñaari pouvoir yi. kon mel na ni kon. Euh, ginnaaw bu ñu xamee ñaari kilifa yi mooy diggante kilifa diine gi ak kilifa aada gi <coughs> foofu nag yaa ngi koy brosser bi ñuy commencé dana baax lool lan moo waral ñun ñuy séparer kilifa diine gi ak kilifa aada gi te wax nga ko ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa mm-hmm. kilifa lañ amoon mm-hmm. ndax sëñ déggee ni nga waxee kii rulam mooy moom muy lijjante maanaam benn day xam. jëfe xam-xamam. di wommat nit ñi ci lu baax. keneen ki moom day fexe ba lépp loo xamante ni lu jëm ci mel ni lu jëm ci askan wi moom moo koy toppatoo. jàpp naa ni ñoom kenn ku ci nekk war nga man loolu. léegi nag fi ma dugale sama question mooy ndax kilifa ak aada ji. sart la ci moom lañ sartaloon kële. moom mu xam di jëfe xam-xamam est-ce que loolu sart la ci moom. <laughs> xam nga. tàqale bi mi ngi ñëwee ci mi ngi déparé ci euh, maanaam sunu taarix réew mi ni mu demee mhm. biñ demee tey ba nga xam ne waa diine ñi ngi fi tàmbalee am doole mhm. daanaka la waa euh, tubaab bii ñëw daanaka ci ñu mel noonu sax loo tax sax seen seen jàppante ak Serigne Touba sax foofu la jóge seen tamit Serigne bu mag foofu la jógee mhm. maanaam bëgg ni bëgg fexe tey ba taqale tey ñaar yooyu waaw wane ni diine ma nga fële nan ndox ndox ndox diine bu dee lu xam ne nag jàppe nañ ñoom ñoom ñooy jàpp ni du diine tey lépp diine la mhm. ñu ñu mën caa am seen salaax ya seen mën caa am tey di def daal lu leen neex sans kenn du leen kenn di leen contrôle xam nga diine moom tam dafa doy ndax moom du la bàyyi nga def loolu neex loolu nag daan la fii nga yem fii nga yem fii nga yem. ñoom am ay barrières daal. waaw kay ñoom nag loolu lan bëggoon dindi. Mhm. léegi bu dee te loolu day gën a feeñ ci ku la mel ni njàngalam Serigne Touba da nga ko gis toujours muy waxtaane ñaari kër yi ci lépp lu mën a doon. Mhm. maa ngi sàkku texe fii ak texe ëllëg mhm. Matlabul Fawzayni maa ngi sàkku yàlla musal ma ci gàcce yi fii ak gàcce yi fa ëllëg waaw al comme li ñu suroo minal aarey ni mhm. saadatu daarey fii texe ëllëg nga xam ni kooku moom ñi mu doon yar ca nga xam ne te fala dooleem yem mhm. lépp loo xam mi ngi leen doon won ni ñaar yi kenn mun leen tàqale mhm. ndax fii adduna bii fi jëfee pour dem alaxira xam da ngay nekk ci digg bi kon munoo bàyyi kee nga ne ko yoral adduna kee nga ne ko yoral sama sama sama diine maanaam sama alaxira lépp loo xam ne sama sama diggante ak sama borom la loolu waru koo kenn waru koo tàqale ko gënul mhm. te jàpp naa ni kenn waru koo kenn waru koo tàqale mhm. léegi nag pour ñëw sa question bi kilifa ak aada jële mhm. ci nii jamono demee tey ci la ñuy waxee dëgg la dañuy charte yi moom rek mu mën lañ ko dénk te mu jub waaw mën lañ ko mën lam ko dénk maanaam mu am tey xereñte ci liñ koy def loo da nga koo dénk tey lu jëm ci wér-gi-yaram ak yooyu na ci am na ci am ak xereñ na ko mën na ko mën a doxal dañ koo dénk lu jëm ci njaay ak njënd meeg yooyu na ko mën a doxal mm-hmm. waaw nan ko na ko mën a doxal maa ngi wax ci ministre bu ñu nawee mm-hmm. ci yenn poste yooyu mm-hmm. ko mën a doxal benn même bu dee sax euh, njiitum réew mi yëpp tamit liñ na am tey ay xereñte kay ngir mën a am ay xel mu dékku tey jàngoree réew mi am ci am mën ci indi ay saafara moom na ko mën ba pare tamit na doon tamit ku jub exactement comme la yonent yàlla Yuusuf waxoon ba ne dénk leen ma ndax man li ñuy doxal mën naa ko doxal te tamit jub naa mm-hmm. ñaar yooyu daal moom la ne xaar ci xaar ñoom ci nii jamono doxee sax mm-hmm. ñoom leen xaar ci ñoom waaye tey ñu euh, mën faatiha ak mën a doon imaam lu xa nii ñu dox xaaruñu ko ci ñoom xam loolu nii suñ diit nii suñ réew yàlla dem ba yegg fa mais fii suñ réew toll moom xaaruñu ko ci ñoom moom dëgg la jazakallahu xayran euh, jërëjëf Serigne Moustapha euh, kon ñu ñuy topp ci Moukhaddamatoul Khidma TV yëpp ku dégg Serigne Moustapha xam ni liñ ko jox waaj na ko waajtaay bu am am solo ndax ci tàmbali leeral nañu kan mooy kilifa diine <coughs> leeral nañu kan mooy kilifa ak aada comme niñ ko gën a xamee wàcce ko ba ci suñu jamono ji naka noonu tamit leeral nañu lan moo tax ñoom ñu di ko bëgg a bëgg a ak leeral ñu tamit kilifa diine gi lan mooy sart ci moom ngir mu xam ko mooy na xam di jëfe ci xam-xamam beneen bi ci topp mooy kilifa ak aada gi mooy liñ ko dénk na ko man te na jub loolu mooy li nga xamante ni moom mooy ci ëpp solo léegi nag ginnaaw bu ñu sukkandikoo ci leetar bi nga xamante ni fa leen bi ñu ñëw nag ci dëgg-dëggi waxtaan wi mooy diggante alaqa bi war a am diggante kilifa ak diine gi ak kilifa aada gi. Hmm. ndax ñoom ñaar dañoo nekk ne kii nekk nii kii nekk nii. Hmm. benn relation lañ war a am relation boo xamante ni dana baax ci société bi. Hmm. baax ci seenu askan. waaw kon daanaka tontu googu sax <laughs> moom relation bi ñu war a am rek mooy jàppalante ngir aska wi nekk ci jàmm. Mhm. jàppalante ngir askan wi gis boppam ci jàppalante googu maam taawun mhm. relation dimbalante rek lan mën a am ndax ñoom ñi ñu yilif gis nga groupe bii nga xam ni ñoom la ñi jiite réew mi yilif mhm. même groupe bi moom la kilifa diine ki yilif xam ñoom ñoo bokk ay cible ñoo bokk ñoo bokk ay ay ay njaboot ay njaboot bokk ay njaboot njaboot gi genn la hmm. maanaam ki nga xam ne fi mu toll nii mooy ñëw ci yow euh, kilifa gi nga ji ko gën jéem a won yoon pour mu tegu ci yoon wi kooku fi mu toll nii bu am lu muy réglé daal ca maire bi la koy réglé ca ministère bi la koy réglé ca nangam ca nangam doomam ci école yooyu lay jànge maanaam ñi ñu yilif benn lan kon ñoom seen seen diggante diggante jàppalante la war a doon. léegi jàppalante ci ban façon <coughs> jàppalante ci lépp loo xam day day doon njëriñu askan wi xam nga àdduna bi mhm. ni mu tëddee day day sama xel day dem ci loolu ñuy wax maqaasidu sharia islamiya mhm. ni mu tëddee yàlla daf koo defee noo xam ni moom lum lum lu mu waxoon ne njëriñ la. Mhm. daf ñuy daf ñuy chartal daf ñuy jeñax pour njëriñ loolu ñu fexe tey ba jëmmal ko. jëmmal ko ñu dem uti njëriñ. Mhm. lépp loo xam ne lor la ñu fexe ba lor boobu tey. ñu ñu jañ ko maanaam maam jalbul manfaa daf daf al madarra mhm. ñaar yooyu nga xam ne moom mooy lu dëgër sharia mooy ñoom doon seen seen seen seen jàppalante ci loolu la ñuy jàppalante dañuy jàppalante di yëgoo ngir njëriñu askan wi pas pour njëriñu kilifa ak aara gi moom kese pas pour njëriñu kilifa ak diine ak moom kese mais pour njariñu askan bi ñaar yooyu daal ci la ni ci la ci la ni jàppale mais xam nga sëñ li ngay wax nii loolu moom mooy euh, diine mm-hmm. waaye suñ ko wàccee ba ci suñu jamono ji ñu nekk mm-hmm. euh, dañuy faral di gis lu bari mm-hmm. mooy kilifa ak diine gi li muy jàppalee kilifa aada gi li ci ëpp askan wi dañuy gis njariñu boppam la loolu tamit est kon kilifa ak diine gi moom. Mhm. taxaw na ni mu waroon a taxawee ci njaboot gi. waa fekkee kilifa ak diine gi moom day jaxasoo ak kilifa aada jooju te li muy séq moom yëpp lu boppam kese kese la boobaa taxawul ni war a taxawee. Hmm. boobaa taxul ndax moom dafa war a doon ki nga xam ne tax day sax euh, wuy xañ boppam ngir tey euh, njaboot gi nekk ci jàmm. Hmm. même kilifa ak aada gi moom tam noonu la war a mel. kenn ku ci nekk tey li mu war a xool ci jëflante boobu rek mooy tey loo xam day jëriñ askan wi léeg-léeg nga gis ci misaal misaal pour mu gën a leer kilifa aada gi mën na bëgg tey teg loi boo xam ni askan yi mën nañ cee bañ a ànd ci ci njëlbeen ndax léegi-léegi askan wi tamit dañuy dañ dul nekk ci yoon dëgg nga bëgg leen caa jële mm-hmm. kenn ku nekk di xool interne da ngay gis ci misaal nga gis mbedd moo xam ni dañ koy occuper anarchiquement occuper teg ay taabal fu ne ne jàpp ba mbedd ma fat ñun waa Ndiarème boo demee xam naa waa Ndiarème fekkee ñu ngi may déglu mhm. euh, am na tali bu aw ci biir marché bi kenn mënatu faa aw jaaykat yi occupé nañ ko xam nga ñëpp xam nañ du yoon tey bu ko maire bi bëggoon a dindi mhm. da ngay gis suñ toog ñu taxaw ne du ko fi amee mi ngi ñuy xañ suñ kii mi ngi ñuy xañ mhm. ko bëggoon dindi mi xañ mi xañ mi xañ chaque jour ñu dégg ñu dégg dama bañ a tudd ay tur muy gën a pressé ñu ngi ñuy xañ du yoon te pourtant ñoom ñu nekkul ci yoon si situation yi mel noonu maanaam maire boobu mën na tey itam dimbali ko maanaam Euh, ba dimbandikoo tey doole kilifa kilifa diine googu. ndax liñ miin fii. mooy kin ni kilifa diine la ba nit ñi nongul ko ko. Mm-hmm. jox ko seen bopp. Mm-hmm. la plupart bu waxee ak ñoom. yàlla def na ci ñoom xëy ba ak kersa goo xam ne danañ ko déggal li mu wax. ci misaal loolu misaal la. Mm-hmm. beneen bi tamit ci beneen côté bi. mën na gis kilifa diine mën na gis kële. muy dox doxin xam nga fay askan wi ñoo nekkutoon ci yoon. mën na gis kilifa gële moom mu nekkul ci yoon. te ñii mënuluñ ko dara. ndax moom lan moom lan jox lenge yi te nangu ko jotagut kilifa eh, diine gi fekkee kee mën na koo déggal mën na ko mën na koo may nopp mën na ko ñaan ci loola bu ko déggalee loolu mën nañ cee mën na doon mooy contraire li ma waxoon sànq nga xamante ni mën na doon njëriñu ñëpp mën na ko mu nar a def dara mu laabiire ko mu laabiire ko laabiire rek la mën ndax mu mënu ko forcer mm-hmm. Mm-hmm. waaw xam nga sëñ Saliou doon wax naan Euh, yàlla yàlla fayal ñu ko buur mën na oyofal boppam mais kenn waru ko ci jàppale hmm. waaw da doon nungu tey da doon dëggal cër boobu nga xam ne yàllaa koy joxe yàlla di wax naan mooy jox nguur ku ko neex hmm. mooy nungu nguur tamit ci ku ko neex hmm. comme jox na ko ku ko neex rek yéen itam nungul leen ko ko le temps que tey lool di loolu di yegg nungul leen ko ko léegi comme demee na noonu bu fekkee moom moo fi ne ku ku mu mën a doon moom moo fi nekk jox ko lu mel noonu kilifa Euh, diine gi kilifa diine gi. kilifa lim mën rek mooy laabiire ko. xam laabiire kilifa bu déggee baax na bu déggul tamit du ci mën dara. kilifa ak aada gi. ci loo xamante ni su ko waree def wala mu gis ni lii rafetul lim mën rek mooy laabiire. laabiire ko laabiire ko ko waxee mënu koo forcer. Mm, laabiire rek la mën a def ak moom. suñu mayewul loolu. mayewul mm. ndax mel na ni. kenn ku ci nekk moom yàlla dogal na comme ni nga ko waxee suñu condition condition yii ñu am euh, njiitu réew mu man manti nekk li nga xamante ni moom mooy doxalinu réew mi ci sa loxo la nekk mm-hmm. léegi nag soo bëggee def dara imma askan wi ànd nañ ci wala ànduñu ci mm-hmm. loolu moom li man rek ñu mel ni kilifa diine yi jug daal di lay laa biire mm-hmm. léegi nag imma def nga wala defoo loolu moom yow sa digg ak euh, sa borom exactement comme ni sëñ bi laa woon sàmbalaw ba rek alhamdulilah bu ko neexee jël bu ko neexee mu bañ a jël. wax na ko sax boo jëlee wax na ko ca. ca bi wax na ko ko boo jëlee. Mhm. dana la jëriñ. Mhm. boo jëlut it inna lillahi <laughs> alhamdulilah kon mel na ni foofu li nga xamante ni moo fi ëpp solo ñu dégg ko ci waxi euh, sëñ Moustapha Ka ji mooy kilifa ak diine ji tamit su jamono doxee bu gisee loo xamante ni nërta indi jàmm ci réew mi. wala lii bu kilifa gi ah kilifa aada gi naree jël mën naa indi loraange ci askan wi moom mu laa biire ki nga xamante ni moom mooy kilifa adduna gi imaamu mu bañee jëf mais moom rôle la ci moom mu laa biire nag ginnaaw bi ñu xamee ni kii am na àq ci moom léegi kilifa aada gi moom lan moo war a nekk tamit rôle ci kilifa diine gi lii rôle ci kilifa diine gi mooy mu jox ko cër bi ko njaboot gi jox mu jox ko cër ndax yàlla yàlla moom moo bind moo bind lépp comme ni ko ñëpp xamee waaye yemalewul dara suuf yi sax yemuñu bërëb yi yemuñu nit ñi sax yemuñu garab yi yemuñu bii day am dég bii doo am dég bii weex bii lewet suuf yi tamit niñ ko niñ ko xamee li ma bëggoo foofu mooy yàlla ni mu yemalewul dara nit ñi noonu la leen wuutalee tamit ci ay cër yu leen jox cër yooyu nag fekkee tey da gën a mën a sa sa nekkin nga ñoŋal ko ak nit ñi ba pare li nga bëgg ñoom nga am ko sax mooy danga leen di bàyyee li leen yàlla cërale maanaam boo fekkee tey kilifa ak jàmbur damay dégg ñu naan am na yoo xam ne kenn du ko xeebal nit boo ngeen bëggee seen ànd sori nit kenn du ko xeebal bisam mais nit tamit kenn du ko xeebal kilifaam waaw fekkee kii la kilif mooy kilifaam ci moom la bàyyi xel ci moom la wéeru ci lu baree bari kooku yow boo buggee ñëw ne eh, jàppale kooku waaye mu gis ngay xeeb kilifaam muy gis ngay doyadal kilifaam muy gis mu cër bi muy jox kilifaam yow gis na ni joxooko ko ko loolaa tey kooku bu ngeen juyoo rek daanaka ci yow la jóge kon moom li mu mën a def mooy jàppale maanaam jox eh, teg kilifa diine googu ci ci cër bi nga xam ne fa la ko mbooloo mi teg ba pare tamit ci eh, bokk na ci cër boobu nag li ko kilifa diine bi di jéem a tey laabire jëme ca mu xam ni kii da koy laabire moo mm. xam ne ndax bu fekkee dañoo yemoon ci li ma liñ définiroon sànq ci mm. tàmbali waxtaan bi mm. mais kooku mooy kilifa diine kooku mu amul lu muy utal boppam mm-hmm. amul lu muy utal boppam kooku kon lu mu ñëw di la ko laabire da nga xamante ne njëriñu li ngeen bokkal bu dutoon askan wii ngeen bokk doo ko gis kon bu ñëwee tey li la laabire doon na rafet ci cër boobu tey nga di ko di ko may la mën a ne di ko may la mën a ne waaw ah, moo tax tey fii fii moom yu bëree bëri yàpp nañ fi laaj yëpp a mën a ne. Mm-hmm, ndax euh, Serigne Fallou. yu mm-hmm. netteel dañ daan wax naan bu daan mës ñaan Senghor dara Senghor di ko waxi loi danaan ko loi boobu yéen yéen a dajaloo woon rek. dëpp woon rek teg ko du du alxuraan du dara fi ñu toll ñun alxuraan mun ñu cee soppi dara ndax jógewul ci yàlla moo tege noonu mm-hmm. waaye loi yi ñun ñoo dajewoon waxtaan daal ni nii baax na mm-hmm. leen mu ni ko dajewaat leen rek waxtaan daal koy teggi daal di koy soppiwaat nga xamante ni <laughs> loi yi moom du lu kenn mënta dindi <laughs> du lu kenn boo doo waroo cee sukkandiku waroo cee su def ko cëslaay ba bañal tey kilifa googu tey li nga xam ne tey gis na ni mi ngi la koy ñaan te moom ñaan googu rek moom mooy rôlam parce que day def li mu mën ba sës mooy fattaqullaha mastataatu ci point yu mel noonu ak li réew mi di doxe ci wàllu yoon munul lu dul loolu tam jàpp naa ak sunu nii réew mi doxe bu leen yoon mayan leneen tamit duñ ko sax mën a jël waaw ah, ndax seen doxin du ko laaj jërëjëf sëñ Moustapha léegi nag sëñ Moustapha su fekkee ni ginnaaw bi ñu xamee ñoom ñaar li war a nekk seen relation mooy loo xamante ni njariñu njaboot gi la Mm-hmm. moo xam kilifa diine gi moo xam kilifa aada gi léegi su fekkee ni nag maanaam kilifa diine gi moom ni nga ko waxee ci sa biir wax comme li ñu wax dañ koy contextualiser ak dëkk bi ñu nekk di Sénégal mm-hmm. dañuy faral di gis maanaam ki nga xamante ni mooy kilifa aada gi la plupart saabu nangoo déglu déglu kilifa diine gi rek dafa am ci moom intérêt mm-hmm. waaye bu dara xewul duñ gis kilifay aada yi di déplacé di dem ci kilifay diine yi mhm. ah wala bu amee tamit du bari mhm. wala bu dee bu fekkee ñi ngi koy def tamit bariwut mhm. mais li ñuy gën a gis saa bu ñu soxlaa ci ñoom dara rek lañu lañ leen di gis est-ce que loolu tamit bokk na ci loo xamante nii ñoom ñaar moo war a indi seen relation xam buñ ne relation maanaam day gis ñaari wàll la ko ci nekk am nu mu ci war a taxawee léegi kenn ki bu taxawul ni mu war a taxawee mm. loolu yoonu keneen ki nekku ci kële moom fekkee kii dafa am nu mu war a taxawee kii am nu mu war a taxawee waaye gis nañ ni kenn ki comme ci sa misaal bi sax ma jël ko kilifa diine kilifa aada gi mm. mi ngi taxaw taxawoo xam ne du taxaw waaye bu aw yoon mm-hmm. loolu warta tax kilifa diine gi moom dafa war a taxaw toujours ni moom ni mu war a taxawee mm-hmm. loolu bokk na ci maanaam di bàyyi xel yàlla toujours ci sa lépp looy def maanaam ñeneen ñi seen i seen i jóg ak toog seen i yëngu ak seen i dal warta tey changé tey yow sa mm, doxin. warta changé kilifa diine gi moom ci ni meloon xam nga euh, maanaam loolu day dem ba lu may wax dafa xaw a sew tuuti. Mm-hmm. waaye day dem ba mën a dugg sax ci ngistal mm-hmm. xam nga ñaar raaka yi nga xam ne sëriñ bi julli woon na ko. Euh, ba mu demee ca ndar ca bureau ba. Mm-hmm. mën nañ cee gis ni ci kuy analise mën ngaa gis ni kii de maanaam. jam na tubaab bi offensé na ko mhm. mën nga cee gis loolu mhm. muy lu nekk waaye moom jublu ci woon loolu ndax moom ñaar rakkam yooyu du ci bàyyi xel kii toog ak kii nekku fi loolu day doon gisal mhm. te ñoom sori nañ loolu lool sax maanaam eh, saxaaba yi bi leen yàlla di tagg même ne eh, mu yàlla muhammad mii ne moo yonentu yàlla bi gaa yi ànd ak moom nii leen mel nii leen mel bokk lam leen tagge taraahum rukkaan sujjada da leen gis ñuy julli maanaam seen julli gi ñuy julli naafila gi ñu waroon defee yow nga teew duñ tax ñu bàyyi ko mm-hmm. maanaam nga doon def benn jëf nit teew nga suuraale ko ba bàyyi ko sax loolu dañ koy jàpp sax ngistal comme yàllaa tan ko koy def rek teew na teewul yow sa doxin dara du ko soppeeku ñoom seen doxin dara lu ci soppeeku mm-hmm. léegi kon bu kilifa ak aada gi maanaam di dox doxin wu awul yoon mm-hmm. warta tax kilifa ak diine gi moom jóg ci lam doon dox nan da dox li muy dox rek léegi nag relation bi bu bu bu amee gàkk-gàkk foofu moom du moom jógewul ci moom ci këlee la jógee te seetlu nan bu baax exactement li nga wax mm-hmm. lu ñu seetlu la yoo xam ne gaayale daanaka léegi léeg dañuy mel ni ñuy jëfandikoo ñii mm-hmm. Mm-hmm. jëfandikoo kilifa ak diine gi mm-hmm. daa mel ni kilifa ak aada gi day jëfandikoo kilifa ak diine gi waaw bu soxlaa dara daa dem neexal ko pour wan askan wi ne neexal naa kilifa gi yaa gis man a kilifa gi nangam léegi ay sos da ci am lu ne da ciy am pour wane ne man ak kilifa gi nangam waaye parfois du jëriñ dara ndax léeg-léeg nit defa defa defa def xam nga jëf ju yàlla barkeelul ah. nit defa defa def ba jàpp moo ci nekk lu ndaw rek feeñ ci yi wane nag ñëpp xam ne la nga doon def kon du dëgg du woon comme ni naa fekkee daan doxee ak yonent bi mm-hmm. sallallahu alayhi rek na xam ndax am na jëf ju jëf moom fu muy yegg rek day wane dëgg la waaye foo xam ne kuy jëf te yàlla taxul mënoo faa yegg ci sacrifice mm-hmm, mm-hmm. booy nag bu ñëwee dañu xam ni kon yow li nga doon woote ak li nga doon dox ak li nga doon kii dëgg su day am ay gàkk-gàkk yu wane ne moom euh, yàlla mooy aar ay gaayam rek foo leen bëgg a dugalit moom euh, yàlla danga wane ni koom kii li muy def dëgguwul waaye loolu moom dafee yàgg ñun dañoo judd fekk ko fi daana ku fi ñëw rek da nga da ngay xool tey kilifa gu ne gox bu ne rek boo bëggee am boo bëggee tey neexal ña nga xam ni tey ñoo ñoo nekk ca gox bi ñoo aju ci kilifa googu mm-hmm. au lieu que nga dem sax defar li nga war a defar mm-hmm. waaye doo ko def de da ngay dem tax di jéema a tey neexal kilifa googu mhm. neexal gi sax pour pas moom exactement mais da ngay bëgg wane tey ab image da ngay bëgg a mhm. jàllale ab message rek mhm. boo ne ne mag kii de yaa gis fi ma ko teg donte du dëgg ci yow kii de yaa gis li ma koy defal donte du dëgg ci yow boo ko defee jamono ji mën nga am tey ay xol yoo xam mën nga leen mën nga leen indiwaat loolu am la mais yaakaar naa kilifa yi tamit xam nañ ko loolu moom kilifa diine xam nañ ko yaakaar naa sëñ Moustapha li nga mais nag dañ leen dul topp maanaam ci seen jikko nga xamante ni ah, kilifa diine gi moom warut a topp kilifa aada gi ci taxawaay boobu mu am. de taxawaay boobu ñoom duñ leen di topp. duñ leen di topp xëy na ku nekk nag na muy defee wuute nag kilifa xam nga lislaam mën na la may lu baree bari. kilifa mm-hmm. kilifa diine gi waaye am na yoo xam ni yeneen dina tax ba doo ko jëfandikoo. waaw maanaam comme euh, ñëpp toog. Euh, koo xam ne xam nga lim nekk du dëgg du yoon. Mm-hmm. nga wax ko ci biir ne wax ko lu ne. mais nga daat koy wax nag ci pénc mi ñëpp déggandoo am na ñoo xam ne mënuñu loolu seen kersa tey melu mayu leen ñu def nit mm, mm, noonu dañuy wax sax kilifa kenn du ko yedd ci am pénc kenn du ko yedd mm-hmm. am na ñoo xam ne seen doom sax duñ ko yedd ci kan ci moroomu kenn ci seen kanami moroom mm-hmm. loolu sax dañ koy tere sax ci yar mm-hmm. sa xale boo ko bëggee jubbante ak def dara fexeel sax bañ ko koo wax ci kanami euh, moroomam ci kanami moroomam waaye toujours du wéet moom ci ngay gën a mën a amee li nga bëgg waaye boo wéetee wax wax ba sonn tamit déggul yow li la waroon def ko ko nga xamante ni yow def nga sa devoir def nga sa devoir li la waroon yow laa tukallafu illaa nafsak mhm. ci situation yi mel noonu jërëjëf sëñ Moustapha euh, mel na ni waxtu wi mi ngi dem lu bëree bëri euh, ñu egsi nag ci fi nga xamante ni ginnaaw bi nga xamante ni xam nañ ñoom ñaar seen relation mhm. mu relation boo xamante ni njariñ rek la war a nekk ci ñi nga xamante ni ñoom la ñilif mhm. kenn tamit waru cee gis maanaam waru cee doxal njariñ loo xamante ni njariñul boppam la mhm. léegi nag ñu ñëw ci tomb mujj mooy ànd boobu ñuy ànd ban résultat la mën a jur ndax lépp loo xamante ni ay nit ñu ngi ko bokk di ko def mhm. di ànd dafa war a am ay jeexit mhm. ànd kilifa relation bi kilifa diine am ak kilifa adduna yi ban jeexit la war a def jeexit boobu day aju rek ci relation nan la demee <laughs> fekkee relation bi aw na ni mu war a aw kilifa diine gi dox ni mu war a doxe bu gisee muy jàdd mu laabir te moom loolu mun mënta munu ko bañ a def mënu ko bañ a parce que yàlla bi mu diglee bi mu diglee jullit yëpp ne leen seen biir na am tey kuréel yoo xam ni dañuy digle lu baax di tere lu bon ña ca jiitu ña sant leen ko mooy ñi nga xam ne xàmmee nan lu baax ak lu bon xàmmee nan lu baax xàmmee lu bon ñoo ciy jiite ñooñ ñooy boroom xam-xam yooyu mm-hmm. rawatina boroom xam-xam yi nga xam ne tamit yàlla mayaat na leen tey geneen tey ak kawe geneen xëy ba fekkee mën naa wax noonu geneen respect mhm. léegi mën na am xam-xam doon ko baax sax te xëy day kat doom mën na bañ a yegg fenn fi ah, alaaji Moustapha Sène day ma fay daf may faral di wax naa ma mhm. Moustapha ma ne ko waaw mooy sama turandoo mu ni ma am na masala yoo xam ni mhm. xam-xam du ko àtte daraja moo koy atte. nga xamante ni ku am daraja. am na daraja ak xam-xamam am na xam-xam mais amaale na daraja. Mhm. boo waxee kenn du ko ñëwee ñemee teggi. Mhm. mais yow ku fekkee koo xam ni am nga xam-xam ni gaa ba leer li ngay wax leer na nañ. Mhm. mais amoo daraja googu. xëy ba boobu yàlla lu ko ci nit ñi boo waxee tamit mën na am xam nga gis kàccoor bu jógee fe ne la du fi amee. waaw wala sa kàddu daal mënta fi ñoom tam boobaa ñu koy def tamit bil hikma udu ila bi rabbika bil xikma wal mawida al xasana ñu ñaar yooyu tamit da ciy jara bàyyi xel mhm. xool kii tey fan nga ko mën a jaar ba am li nga bëgg ci moom te xëy na tey dara du yàqu mhm. benn xool du jóg yooyu tamit ñoom dañ koy bàyyi xel bu baax a baax a baax te may fàttaliku benn kii li waneen walul mooy son rôle mhm. ah, al maamun al xalifa al maamun doomi Haarun Rashid ji bi nga xamee nekk na xale di jàng Euh, jàngalekat ba daf koo mës a dóor ah mm-hmm. jékki-jékki xool moom neex ko rek mu dóor ko mm-hmm. mu dóor ko te def ko dara mm-hmm. euh, saa ko xale bi laajee lu tax nga dóor ma du ko mu gëdd ko noppil lag du ko tontu xale boobu dem dem ñu teg ci ñaar fukki at rek wala lu ko jege xale boobu dem tey ba jël nguur ga maanaam dem ba doon kilifa réew ma léegi foofu nag la daal di woo tey euh, jàngalekatam boobu convoqué mu ñëw pale léegi mooy kilifa gi. mu laaj ko lan moo taxoon ba dóoroon. waaw hmm. ah, sañ te bañ a tontu. léegi soppeeku na. ñaankat hmm. daal di ree daal ko ni fàttewoo ko kon mu ni ko fàttewuma ko mu jox ko fa leçon am solo mu ni ko man may man maay dañ ma laa joxoon pour ma jàngal la. Hmm. lii daf bokkoon ci leçon yi leçon bi nag tey nga koy comprendre. ñëwaat rek ci docteur Serigne Moustapha Kay bi nga xamante ni moom mooy waxtaane waxtaan wu am solo wii muy relation bi nitu diine ki war a am nituk aada gi kilifak aada gi comme niñ koy baaxoo di waxee ñu tolloon ci nag ci ginnaaw bu ñu àndee ñoom ñaan benn résultat la mën a jural société bi si Moustapha nag ci di résultat bi mën a jural société bi mooy résultat bu baax su fekkee ni kenn ku ci nekk li ko war ma ngi koy def seen ànd résultat bu baax rek lay doon waaye sëñ Moustapha ngir bale ñoo tëj résultat yooyu ndax war naa nekk résultat boo xamante ni société bi daf ciy gis boppam ndax dañuy faral di gis lu yàggul dara euh, lu bare bari sunu jamono ji yenn kilifay diine yi ak yenn kilifay aada yi day mel ni ñoom ànd gi ñuy ànd résultat yiñ ci yi ci juddoo ñoom seeni intérêt lay doon mën naa doon intérêt kilifa ak diine gi wala mu doon intere kilifa aada gi waaye résultat bi dëgg dëgg dëgg maanaam ñii ñii def duñ ci gis seen bopp est-ce tamit loolu tamit lu war a am la. waaw xam naa dañuy ñëwaat kon ca waxoon rek moom la ñuy waxaat mooy kenn ku ci nekk buñ defee ñoom ñaar ñëpp ko du nekk bu taxawee taxawaay bi ko war rek askan wi jaar da ci gis boppam ndax la ciy juddoo njëriñ lay doon njëriñ loolu kon askan wi rek ñoom ñoo ko njëriñoo. ndax ñoom ñaar daanaka amatuñu njëriñ lu ñuy wër kilifa diine gi fekke maanaam li ko yàlla may ci xam-xam. yàlla may ko ko ci taw feex mu koy jëfee yàlla may ko ko ci ci nit ñi nongul ko kooku amatul njëriñ ku muy wutati mm-hmm. amul leneen lu mu bëggati ci àdduna naka noonu kilifa ak aada gi it fekkee mel na na mu war a mel sax wax dëgg yàlla mm-hmm. fekkee maanaam ñoo ñoo xam ne da ngay demander parce que da ngay laajte léeg-léeg laaj sa est-ce que ñii nuñ mën a nekkee nuñ mën a accès fi est que ay nit lan fekkee nit ki maanaam yàlla may na la nga jiiteem réew moo xam ni ay millions yi million lañ bu ñu leen doon wàññi yàlla tànn ji ci tànn ay ay at ci at ci at ay ñett nit la ciy tànn ak yu mel noonu yow nga bokk tey ci benn ñaar ak ñett yu yàlla di tànn jox leen lu toll noonu loolu bu la doyul ba tax askan woowu tamit nga leen di mën a noggatuwaat ci leneen loolu franchement tamit day doon ci ko xam kenn du ko mën a analyser kon ñoom ñaar dama bëgg a wax rek ni ñoom ñaar ku ci nekk sa sa njëriñu askan wi rek moom moo la war a ñor sa seen relation relation boobu foofu rek la war a yem ku nekk tey euh, taxaw taxawaay bi nga xam ni moom nga war a taxaw boo ko defee rek njëriñ daal di juddu njëriñ boobu juddoo askan wi rek ñoo ko jariñoo mm. te dafa doon chance bu rëy rëy rëy gis nga chance bu rëy la boo ko jëlee tey ci réew mu mel ni Iran. Mm-hmm. ñi nga xam ne tey nit ñi dañ leen a bàyyi xel déggal leen. Mm-hmm. xam ne tey lu ñu wax ñoom la ñoom la nit ñiy def. Mm-hmm. ñooñu tey buñ fexee ba euh, bu ñëlee fexee ba ñu jaxasoo jaxasoo bu tegu ci yoon. jaxasoo bu am bu am bu dëggu wa taawanu alal birri wa taqwa loolu buñ ko amee loolu dana doon tey njëriñu askan wi waaye même ñooñ ñooñ sax dana doon tey lu leen di aaraat ndax tey mën na dana den jural tey ñi nga jiite bëgg la ñi lay jiite buñ la bëggee rek daanaka boo juumee sax ñu jéggal la ko ndax ni laa bëgg kiiraay gi gën am solo mooy ñi nga jiite dem ba bëggal leen dem ba bëgg la seen bopp contrairement ak tey fekkee tey dañoo gis ne yow da ngay jéem a tey maanaam euh, jëriñoo di jéem a jëriñoo li naan door ci jamono ji mhm. kilifa diine ki mhm. bu dellu bu demee wax nañ ko nit ñi dañ lay bañ mhm. ndax dañoo gis ñëw lu ñu gën a fonk muy lu aju seen gëm-gëm moom nga fowe moom ngay fowe moom nga fowe dañ lay daal di dañ lay daal di génne seen xol waaye fekkoon tey da nga tey li nga perte gis ñu mel noonu dañuy dem tey jël gis njëriñ lii di ko jima xëcc di ko mais ñi ngi yàqal seen bopp lor lu rëy rëy nga finalement buñ demee ba mandaxe ña balance da ngay gis ne li nga perte moom moo ëpp li nga gañ daanaka euh, plus cinq euh, moins huit lay doon rek mm-hmm. daanaka li nga ci perte moom moo ëpp te fuuf fuuf li nga ciy gañe mm-hmm. te fekkoon te da nga aw nanga nga war a aw lii nga bëgg nii di ko am te di nga amaale leneen di nga am di nga ci nekk ci jàmm nit ñi am ci yow cofeel nit ñi bëgg la te loolu day am tey lu muy lu muy def ci yow ci sa cawarte ci liggéey ak yu mel noonu mm-hmm. waaye sinon am na ñoo xam dem nan ba nga xam ni ñoo ngi leen jiite dañoo dem ba am tey relation boo xam ñëpp xam ne mbañeel moo dem ba am foofu. xam ne tey même bu defoon lu baax sax askan wi dañuy fexe ba gis ci lu bon. dëgg la waaw loolu li ko waral. mu yu mel nii waral na ko. Mhm. dem nga xam ne tey ñàkk dox doxin wu dëggu. Mhm. ak tey ñi nga xam te ñoom nga bokkal ñoom nga bokkal njaboot gi muy kilifa diine yi. te bu ñuy wax njab ñoom la ñoo ko bokk mais njaboot gi sax kilifa diine yi sax ñoom ñoo ci ëppale. dëgg la ndax ñoom leen gën a déggal. Mhm. ñoom leen gën a bëgg waaw te yàpp naa loolu moom mi ngi fi ba léegi alhamdulilah. jërëjëf kon mel na ni euh, résultat biñ ci mën a jëlee. Mhm. ci ñoom ñaar seenub ànd mu nekk résultat boo xamante ni résultat bu am am solo lay doon. Mhm. mooy kenn ku ci nekk li ko war ci njaboot gi mu di ko def. Mhm. rawatina nag maanaam kilifa diine gi. ndax moom mi nga xamante ni comme ni nga ko waxee sëñ Moustapha. moom dafa am ñaari wàll. mooy benn moom moo yilif njaboot gi. Mhm. waaye beneen bi tamit mooy njaboot googu muy yilif yàlla daf ko koy laaj donte suñu borom subhanahu wa taala ñoom ñaari ñëpp la leen la koy laaj mhm. kilifa ak aada gi dina ko laaj ndax naka nga doon sàmm njaboot gi mhm. naka noonu tamit kilifa diine gi waaye ki xam dafa dul yem ki xamut ku jaar ci àdduna ak dana la laaj léegi ku ëpp ay responsabilité rek yow yaay ëpp ay gën a question <laughs> waaw ndax comme euh, laaj gi moom euh, kenn ah, du ci mucc kenn du ci mucc waaye ku la ëpp responsabilité rek ni ko waxee lu nit ki ëpp ay responsabilité ay laajam di gën a bari ay laajam di gën a borom mm. kon kilifa diine ak kilifa aada yi yàlla na doon bu ëllëgee ba suñu moom subhanahu wa taala di leen laaj ñu mën a répondre ci seen i question te réponse yi ñuy def mu doon ay réponse yoo xamante ni dana favorable ci ñoom kon Serigne Moustapha Euh, mel na ni loolu ñu doon waxtaanee Maolana Cheikhul Khadim loolu la xamoon ba taxoon mu doon dénk Samba Lawbe. Mhm. Samba tamit moom tamit loolu la xamoon ba tax mu sàkk woon ci sëriñ bi mu dénk ko. Mhm. ndax kilifa gu mënti doon. Mhm. pare saa yi nga xaw a jàdd nga war a wàcc raay. waaye dana baax nga am loo xamante ni saa bu sa xel demee rek. wala loo xamante ni saa boo ko xoolee mu man laa delloo si waat kon ñoom kilifa yi. rawatina nag kilifa yi ñu yàlla dénk mi Maulana Cheikhul Khadim moom xamoon na li ko waroon ci njaboot gi. ba saa su nekk yemul woon ci sàmbalaw ba rek njabootam kenn ku ci nekk daan na dénk ñi ay taalibe boppam. Mhm. daan dénk jullit ñi daan dénk ay taalibe boppam. daan dénk tamit buur yi te misaal la ci mooy lettre bii nga xamante ni dénkoon na ko sàmbalaw ba mhm. kon mel na ni jataay bi jëlee nañ ci ay bind yu yees waaye jëlee nañ ci ay bind yu ama am solo. yàlla na yàlla def nag bind yi ñu mën koo jariñoo rawatina kilifa diine yi ak kilifa aada yi ndax loolu mooy li ëpp solo mooy liñ fi doon waxtaane ñoom kilifa diine yi ñu mën koo jot mën koo jëfandikoo kon Serigne Moustapha ñu jox la kàddu gi nga nuyoo mbokk MK TV ñun wane yëkkati jataay bi incha allahu taala man kay li may ñaan sax di ko yaakaar yàlla na ko yàlla def mooy ñu dem ba kilifteef gi doon benn dellu fa mu nekkoon amiin yaa boobaa ki ki ki ñuy wax ki kilifa diine ci doon ku xam lam war a xam te di ko mhm. jëfe mhm. daanaka tamit mooy mën a dogal ca geneen wàll bu ko defee mbir mi day daal di jàpp ni loola lool sax mhm. alhamdulilahi rabbil alamin di eh, di doon eh, bëgg tamit lettre bi eh, dénkaane bi nga xam moom la sëñ bi bindoon sàmbalaw be moom war naa tasaaroo lool ba ñëpp jot ci parce que dinkaane man mi bu ma jotee te aw ma benn décision bu may jël yow nga jot ci tamit daanaka du am njëriñ waaye nan fexe di ko yaatal di ko yaatal di ko partagé ak fu ne ko waxtaan woo suñu oustaz euh, sëñ Abdourahmane euh, mbaa sëñ Mbacke Abdourahmane defoon ci mm-hmm. yooyu ñu fexe tey ba ña ci war a jot dëgg-dëgg ñu nekk ci instance yi ñuy décider mm-hmm. mu kawe wala euh, mu gën a RH bi gën a kawe mm-hmm. fu mu gën a nekk daal ñoom ñëpp ñu jot ñoo xam ni adduna bi du kër dañ fiy jaar rek dañuy jaar dañuy dañuy jàll te loolu jàpp naa ni kenn umpale ko. waaw kenn umpalewul ni àdduna bii moom ndax kon suul sa maam suul sa baay jàpp xam nga ne tamit say doom danañ la suul mhm. te loolu jàpp naan ñoom ñëpp xam nañ ko mhm. kon nag euh, xëy na saytaane moo ñuy mën rek mhm. ak yeneen mbir waaye ñi ngi ñaan yàlla rek yàlla na yàlla doole sutura suñu réew mi yàlla def ci jàmm muy doon jàmm nag ju tegu ji dëgg jàmm ji tegu ci justice bu ko defee mu doon lu sax a sax a sax alhamdulilah di santaat yàlla bu baax a baax di nuyu waa muqaddimatul xidma bu baax a baax di nuyu sëñ jili mi ak hospitalité bi macha allah dalal geeg yëpp ñu ngi koy nuyu sañ jili bu bu baax a baax moom tam di ziar ñëpp nag di jéggalu ñëpp boo xam ña ngi ñu doon topp lu ci dëng rek ñu jéggal ñu ko mm-hmm. lu ci jub rek ñu ànd sante ko sante ko yàlla mm-hmm. di leen wax xëy na kon kàddu gaa ngi noonu asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf euh, docteur Moustapha Kay ci ndénkaan lu am solo loolu nga mujje dénkaane mooy lii ñu doon waxtaane ñu jukkee woon ko ci leetaru sàmbalaw bi bis ko sëriñ bi dénkoon ñu fexe ba ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñu ëpp kàddu fexe ba jot ci leetar bi leetar bi tamit képp ku di kilifa ñu fexe ba saa su nekk nga di ko man di yër mel na ni loolu la daayira bii di muqaddamatul xidma ak kilifa yi nekk ci bopp yëpp xamoon ba ren waxtaan wi gën a mag ci seen activité ñu jëloon leetar boobu waxtaanee ko waxtaanoo ko al oustaz Serigne Mbacke Abdourahmane ngir xëy na moom ak wàccaayu màggal bi nga xamante ni ñi ëpp dañuy jox seen i nopp Tuuba mm-hmm. suñ ci waxtaanee ndinkaan lu ame solo noonu nga xamante ni sëriñ bi def koo dénkoon kenn ci buur yi ku di buur rek di nga xamante ni kon leetar bi yow yow lay waxal. Hmm. waaye naka noonu tamit képp ku di kilifa nga xamante ni dana baax soo amee njaboot nga leen di dénk kon mel na ni leetar bi moom luñ gën di dem muy gën di méngoog jamono. Ah. yàlla yàlla defal tawféex nag ba saa su nekk. ñuy mën a gën di jëfe ndigal yi nga xamante ni moom la ñu sëriñ bi di dénk jërëjëf sëriñ Moustapha ñoo ngi lay sant ci tur daayiratu Rawdu Rayaahiin ci turu daayira muqaddamatul xidma ci turu ay yam yi xamante ni ñoom ñoo organiser ah, lii ñu ah. ñaan lépp luñu ñu rek yàlla nañ ci làq ngërëmal suñu borom subhanahu wa taala lépp lu ñu fax tamit yàlla nañ ci làq ngërëmal sëñ Tuubaa bi nga xamante ni moom lañ koy liggéey ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu